alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ay yéen mbokk julit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yi nga xam ne mënuñu koo peek di ko ñaan mu julli ci suñu soppe ba yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sax leen ci loolu ba dee fekk leen ca ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ca lu ngeen di wax mu nekk wax ju jub kon de yàlla dana yéwénal seeni mbir bàlleel seeni bakkaar ku bëgg a texe adduna ak alaxira day nangoo topp yàlla ak ab yonentam gannaaw loolu mbokk julit fii ñu toll day suñu borom yàlla baaxe na la nga xam ne lenn ci ay jaamam génn nañu seeni kër bàyyi nañu seeni njaboot génn nañu seen alal ñu bari ci ñoom dépensé million ngir wuy ji seen borom jalla wa ala waaye lu ëpp un milliard ak nangam bal deux milliards doomu aadama yi tey ñu ngi tasaaroo ci kaw suuf ñoo xamee ni nii seeni xol ma nga jëm ca Makka seen xel yépp mi ngi nekk ca Makka na doon mas nañ faa dem wala musuñu faa dem doonte ne mbokk suñu borom yàlla ci yërmandeem yërmandeem ju yaatu jooju du mën a xool mu ko jurit ñi ak lim bi ñu nekk muy yemale yërmande ba ci lim bu néew bay dem Makka loolu tax ubbi na bunti xéewalam ci ñoom daa di aj Makka googee mu faratal ko ci dund doomu aadama bi benn yoon soo ko ajee loolu wàcc na la am nañu yàlla baaxe gannaaw ba ñu ajee ba pare ñu mën a dem dellu waaye du ñëpp suñu borom yàlla nag indi jaamu yàlla boo xam ne ñi mas a aj ak ñi musta aj ña nekk ci aj màkka ga ñëpp ñoo ci bokk yem ca mooy xiiwal yi nga xam ne ubbi na ko ci fukki fan yi nga xam ne moom la ñuy séentu muy fukki fan yi nga xam ne moo ubbi li ñuy tuddee zulhijja di weeru tabaski sunu borom yàlla tudd ko ci téeréem daal di ci waat ne mi ngi waat ci fajar mi ngi waat ci fukki guddi ya loolee la ko borom xam-xam yi firi mooy fukki guddi ya ubbi la nga xam ne mooy tabaski doonte ne arab ak lang yépp ci bokk yem lii di guddi ak bëccëg léeg-léeg ñu boyal ko di ko tudde guddi wala bëccëg wolof danaan am na guddi yu ma jaar ci gannaaw fekk mi ngi ci jublu jamono bu mu jaar ci gannaaw kon jubluwaay ba muy bëccëg yooyu nga xam ne moo ubbi tabaski suñu borom waxaatit ne ay yow Ibrahima woowal nit ñi suñ ñëwee daan tudd yàlla ci bis yu ñu xam bis yu ñu xam yooyee Ibnu Abbas nee na mooy fukki fan yi nga xam ne dafa ubbi tabaski yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci lu yéeme nee na amul benn bis ci at mi yépp ay bis yoo xam ne defal yàlla lu baax yàlla dana ko gërëme ni muy gërëme lañ ko defeele ci fukki fan yi ñu ne ko waaw même bu doon ñiy jihaat ci yoonu yàlla mu ne même ñiy jihaat ci yoonu yàlla seen tuyaa baja la muy rëy rëy tuyaa baja julit bi def ci fukki fan yi moo ko gën a rëy xanaa jihaat kat boo xam ne moom daa génne alalam ak bakkanam ba mu demee mu dépensé alalam bakkanam des fa kooku de laa xam ne kenn mënu koo dab waaye keneen ku dul kii ak lu mu mën a def ci yeneen bis yi at bi bis yi ñu def ci fukki fan yi moo ko gën a màgg mbokk loolu kon bu dee jamono jii la nga xam ne mooy service de télécommunication yi jàngal nañu luy promotion ngal waaye xamal ne promotion des promotions yow jullit yaa ngi koy xaar ci fukki fan yi nga xam ne nii moom moo la tiim borom xam-xam yi dañu ne fukki fan yi nga xam ne moo ubbi tabaski mooy fukki fan yi nga xam ne moo gën ci at bi donte ne ne fukki guddi ya nga xam ne moo mujj ca la nga xam ne mooy weeru koor mooy fukki guddi yi nga xam ne moo gën ci at mi fukki bëccëg yi moo gën fukki guddi yële mooy gën ñoom ñaar bu nekk yàlla dugal ci ngëneel ci biir ngëneel fukki guddi ya mujj ca weeru koor suñu borom ma ngi ci dugal laylatul qadr fukki fan yi nga xam ne moo jiitu ci tabaski suñu borom mi ngi ci dugal bisu arafa laylatul qadr ay ngëneelam yàgg ngeen ko dégg waaye bisu arafa nekk juróom-ñeenteelu fan ci bis yooyee suñu yeneen ci alayhi salaatu wasalaam nee na mooy bis boo xamee ni nii suñu borom yàlla lam ci goreel ci sawara du ko goreel ci beneen bis mooy bis bi gën a metti ci cheytaan daana waxit ku ko woor yàlla baal la bakkaari at bi nga génn ak bakkaari at bi nga jublu yépp loolee kon moo ko nekk ay ngëneel loolu moo tax ba borom xam-xam yu jëkk yi su fukki fan yi masaan dugg ci ñoom da ngay gis ne dañu daan daw doomu aadama yi daa di bari di wéet ak seen borom ca jàkk ya wala feneen di bari lool di jàng alquran fu ñu toll lool di bari di tudd seen borom jàll wa ala ngiree la nga xamee ne nii occasion la boo xam ne bu rombee da ngay gis ne pour nga dabuwaat ko day jafe lool te mooy ñu bari ci nit ñi da ngay gis ne léegi ñu am ab promotion boo xam ne da leen di intéressé bu leen rëccee ñu am lu leen metti waaye mbokk xamal ni ab jëf lu mu néew néew néew nga def ko ci fukki fan yi ñuy teew moo gën a màgg jëf lu mu rëy rëy rëy yoo xam ne def nga ko ci yeneen fukki fan yu bokkul ak yii jullit war a profito ci lépp loo xam ne lu baax la la jiitu ci lu baax loolu heure booy teeru ak jaamu yàlla xamal ne la gën la nga koy teeroo mooy tub bu sell yow doomu aadama heure boo jógee di jëm ci am ndaje la nga njëkk a xalaat mooy naa sangu avant may toilette kon it bis yi buy ñëw ngal la waay fexeel yeesal sa tuub ci lépp loo xam ne yaa nga ca woon ci bakkaaru dox bakkaaru tànk bakkaaru loxo wala bakkaar bi gën a jege muy bakkaaru làmmiñ gannaaw ba nga dogu ci yéene bu sell ay yàlla fukki fan yii di ñëw de fas yéene naa koo def fukki fan yi jaamu yàlla say jaam bàyyi nañu seen kër dem makka waaye man de fukki fan tabaski yi di ñëw fas yéene yaa naa it yàlla bàyyi lépp loo xam ne yëg naa ne sa ngërëm nekku ca ca loolee mbokk na doon télévision ya nga xam ne ay deux heures de temps ngay def ca kanamam journaux yu amul benn njëriñ grand place ya nga xamee ni nii ay caaxaan lañ fay wax ak yeneen ak yeneen lu la amulul njëriñ yàlla fas yéene naa fukki fan yi moom def ko fukki fan yu may dellu ci yow def ko fukki fan yi jaami yàlla ngiree ñu màggal fukki fan yooyee taxoon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ñuy wax ne bu weer wi feeñee te weer wi ñi ngi koy séentu talaate bii di ñëw mu ne bu weer wi feeñee képp kenn ci yéen koo xam ne fasoon naa yéene rey xar ca bisu tabaski ba bum laalati ay karawam ay bum watoo ci bum laal lenn lu muy dindi ci karawu yaramam waaye ay weem it bum ca laalati dara loolu muy wane ne fii ak talaata yow ñu bëggoon a dagg say we wala nga watu nga la waay profitool ci loolu su ne da ngaa nar a tabaski ca xam ne bu paasee loolee sunna danaan la bu ko def ba baa ngay rey sa xarum tabaski loolu moo tax ba bokk julit nañu góorgóorlu ci fukki fan yi rawatina jéem a fonk jullit mbooloo ci yow mi nga xam ne daa nga ko sàggani bu dee ne at mi yépp mënoo ko respecté doxul sa digganteeg sa borom ay yàlla fukki fan yii day ay babaa ñuy tabaski fas yéene naa benn julli du ma raw ca mbooloo ma te boo ci dëggoo rek yàlla jàppale la lu ci waay man na ko woor daga doon woor juróom-ñeenti fan yépp ndax bisu fukkeel ba kenn du ko woor wala da nga doon woor juróom-ñaar wala juróom wala ñett wala même lu mu néew même bu doon benn far nga cay woor nañ xam ne loolu luy jegeel doomu aadama bi la na am wax nañu sànq ne li nga xam ne mooy guddi koor ya moom moo gën ay guddeem waaye noonu it la ñuy gisee ne maadaama bëccëg yi bisu ngëneel la guddi yi it bisu ngëneel la ca may loo ca man ci yokk ca say nawaafil ngalawaay góorgóorlu nga def loolee mu am ca lu yomb lool loo xam ne góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp a ci bokk yem te muy bari lool di tudd yàlla yonent bi alayhi salatu wassalaam ci loo xam ne imaamu ahmad solo na ko daana wax ne fukki fan yi ubbi tabaski day mooy fukki fan yi yàlla gën a bëgg ci at mi mooy fukki fan yi gën a màgg ci at mi maa ngi leen di dénk fu ngeen mën a toll ngeen di baril di wax li nga xam ne mooy subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar ngar la waay di leen ko baril benn sahaaba ngi nii di ibnu omar moom abi hurayrata radiallahu anhu anhuma daanañ jël fukki fanu tabaski yi bu teroo dañ daan génn ci marché yi di kàbbar ca kaw allahu akbar allahu akbar nit ñi di leen dégg ngir roy leen alhamdulillah alhamdulillah mi ngi noonu loole ay zikr ngir fàttali doomu aadama yi nekk ci marché yi ndegam ñi nekk ci marché bay jënd ak jaay nag la ñuy war a fàttali loolu waxuma yow mi nekk sa kër wala yow mi nekk ca la nga xamante ni mooy sa atelier kon góorgóorlu leen lu ngeen man ci fukki fan yooyu seen làmmiñ bañ a jóg ci tudd yàlla rawatina ci kaddu yooyu nga xam ne mooy kaddu yi gën yi doomu aadama di wax ci kaw suuf xamal ne moom mooy subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar foo ca commencé rek da ngay gis ne loolee lu baax la su ko defee kon zikr yooyu nga xam ne dafa aju ci fukki fanu zilhijja noonu la tëddee daf caa am yu ñu boyal yi ñu boyal mooy yoo xam ne fukki fan yi mboole seen foo toll del def zikrullah mu am te nag yu ñu gën a soppati mooy buñ demee ba bisu arafa ba taxaw mi ngi noonu doomu aadama bi gën a yokk nag ay zikram ba baa bisu tabaski ba ba baa la nga xam ne moom mooy ñette fan ya ci topp yooyu yépp ñu baril di def ay zikrullah bokk na ci jamono joojee ay suñ demee ba arafat taxaw mooy ñu gën a baril la nga xam ne moom mooy takbir ndax suñu borom moo ne lu tukabbirullaha ala ma hadakum ngir ngeen màggal yàlla ci lim leen jubal takbir yooyu am na ca melokaan yu ca rot bokk na ca allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira loolu lu yomb la am na ci beneen boo xam ni day wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd loolu lépp da ngay gis ne ay mbir la yoo xam ne lu yomb la loolu moo tax ba ngalawaay mbokk julit nañu góorgóorlu te jëf yooyu heure buñ koy def ñu boole ko ak ragal suñu boroom boole ko ak dëggu suñu digganteeg suñu borom ca xam ne kat mbokk julit mbir yi moom nam réye woon mu sell ko moo ko gën nam baree woon mu sell ko moo ko gën suñu borom mi ngi ñu jox misaal ci ñaari doomu aadama alayhi salaam nga xam ne daa ne ko jamono yooyu ñoo seen bàyyi ak seen njaboot dong nekkoon ci kaw suuf bañ amee jafe-jafe bu dox seen diggante ñu ne nañ génne sarax ba xam ku nekk ci dëgg bañ génnee sarax yàlla dafa nangul kenn ka ka ca des yàlla rejeté ko loolee da ngay gis ka nga xam ne mooy frère ba nafa innama yataqabbalu llahu min almuttaqin xamal na ñi yàlla di nangul moo ñi ragal yàlla loolu moo tax ba xamal ne mbokk julit ragal yàlla mooy wéetal yàlla sa xol bii nga xam ne yàlla dong nga ci yaakaar yàlla dong nga ci ragal nga gëm ne mboolem mbindaafari buñ daje woon amaluñ la njariñ amaluñ la benn lor na doon ñooñu ay yonent lañu ay malaaka lañu kuñ mën a doon gannaaw loolu itamit nga fexe ba la ngay def nga dëppale ko ak sunna la ngay def sell ci yàlla tax lii booy képp kum daje ci yow sa jëpp lu mu néew néew néew suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana ko nangu te heure bu ko nangoo ba ful ko da ngay gis ne lu mu néew néew man nga caa am texe amma lii ma la wax su dee ne sa xol bi ak bokkaale ma nga ca loo defalati yàlla at makka la koor la julli la yàlla faaliwu ko su dee ne am nga keneen koy yaakaar ku dul yàlla keneen koy ragal ku dul yàlla xamal ne sa borom yàlla loo ko defale ci gisu ko naka noonu it bépp jëf lu mu rëy rëy ca ngistal dugg ca sa borom yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ne loolee moom nekkatul loo xam ne nii lu muy faaleeti la loolu tax ba bokk ab julit war a góorgóorlu ci kemtalal kattanam di xool naka lay def ba lépp lu baax bépp bunt bu baax mu jël koo ubbi lépp loo xamee ni nii mënu ko képp ko mu gis mu nekk ca ngalawaay mu ñee ko ca loolee te xam ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam dañu daan wax ne àdduna lay ñeenti nit dong ñoo ko siq waa ji nga xam ne yàlla subhanahu wa taala manal na ko lu baax ba pare may ko xam-xamu mu def lu baax loolee na doon alalam jum jël di ko joxe wala xam-xam bu mu jël di ko jàngale kii day bokk na ci gën ci nit ñi am na ko muy àndal yowm alqiyaama mooy waa ji nga xam ne moom day yàlla muyu ko alal yàlla muyu ko xam-xam waaye nag mi ngi yéene woon lool aka neexoon yàlla xamal ma li diw xam ba may mën a taxaw ca la nga xam ne moom lay taxawee aka neexoon yàlla may ma alal ji diw am ndax pour ma tabax kër gu rafet wala war woto bu rafet déedéet ngiree ma mën a def jëf ju baax ji muy def ci yàlla tax ñaar ñii ñooy ànd yowmal qiyaama donte ne contraire ba mooy contraire ba ki yées ci nit ñi mooy ki yàlla may xam-xam wala may ko alal mu jël ko di ca nax doomu aadama yi ngir am teraanga àdduna bokk na kuy ànd ak moom yowmal qiyaama képp koo xam ne da ko ñii ci intérêt boobu muy am ci àdduna loolu tax ba mbokk julit du mucc ci ñaar yi benn mu bokk ci ñi xam lu baax man lu baax di def lu baax wala boog mu bokk ci ñi nga xam ne xam nañ lu baax waaye mënuñu ko fu ñu toll ñu koy yéene waaye fu ñu toll it di ñaanal ña nga xam ne ñooy def lu baax loole ngir yàlla subhanahu wa taala boole leen ci la nga xam ne mooy yoon ba looloo tax mbokk lu baax a ngi nii di aj makka yàlla dogal na am na ñu bari ñoo xam ne tey yàlla baaxe nga leen ko xatta lenn ci ñoo xam ne ñoo bokkoon ci jàkk ji di julli yàlla baaxe na leen ngalawaay bu ñu fàtte fu ñu toll ba baa aj gi di jeex di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala ngir ne ànd ga ñu ànd ak ñoom ci seen xol ak ci seen ñaan dañuy jural yàlla boole ñoom ñoom ci seen yool ni ngeen ko waxe woon ci xutba yi jiitu yonent bi salallahu alayhi wa sallam jóge xare tabuk xare bu metti suñu borom yàlla tudd ko ci téeréem alladina tabauhu fi saati l usra tagg sahaaba ya nga xam ne ñoo toppoon yonent bi ci jamono jafe-jafe ñu def ñaar fukki fan ci àll bi di fa tawte tàngooru arabi saudi bi dal seen kaw bañ demee di nibi si ba jub madina yonent bi alayhi salaam ne leen moo ni day am na ñu ñu bàyyi madina amul coono bu ñu dal suñu xare amul dépense bu ñu dépensé amul xur bu ñu wàcc amul fitna bu ñu dal lu dul tiyaaba ba ci juddoo ñoog ñoom la ko yàlla boole sahaaba yi ne ko ah yu mu yàlla yónni loolu doy na waar di te ñoom ñu ngi toog madina mu ne waaw waaw ñu ngi toog madina waaye la taxoon ànduñu ak yéen mooy la nga xam ne mooy ngant na am ngant a tax ànduñu ak ñoom waaye leneen ko may dëgg-dëggit mooy seen mbokk jurit yooyu nga xam ne fan toog ñi ngi leen di ñaanal fan toog ñi ngi ah rafet lu taxawaay ba nga xam ne moom la ñuy taxaw looloo tax suñu borom yàlla daal di leen di boole ak ñoom te yeneen bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne almaru ma aman ahabba doomu aadama koo bëgg moom ngay àndal yowm alqiyaama te doomu aadama doo ko bëgg mukk lu dul ay jëfam dala neex loolee kon di mbir moo xam ne ngalawaay mbokk nañ ci bàyyi xel bu baax su ko defee ñi ngi ñaanal yàlla ñi ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mboolem ujaaj yi nga xam ne ñoo jóge penku jant sowu jant yal na yàlla yombalal leen seenug aj yal na yàlla nangu leen seenug aj yal na yàlla def ko muy aj bu sedd boo xam ne nii du am ay catastrophe yal na yàlla subhanahu wa taala màggal seenub yool ca yool boobee nga xam ne yonent bi nee na mooy tabbi aljanna yal na yàlla boole ko ak ñun yal na yàlla subhanahu wa taala yombalal ñi ba ñun ñëpp ñu mën a joxe jàmm yàlla gu mag googee la nga xam ne mooy fukki fan yi jiim ñu yal na yàlla teral ko ci ñun ci jàmm mboolem yiw boo xam ne yàlla dana ko gërëm ci ab jaamam yal na yàlla yombal la ñu bañ taxawee ko ci jëfe ko gannaaw ba la ca gannaawam di tabaski gu mag googee yal na yàlla subhanahu wa taala tekkaloo ñu ko mboolem borom kër yi yal na yàlla yombalal leen lu ñu rey ngir yàlla tax waaye rey ko yéen ngir bëgg la ci la nga xam ne moom mooy seenu njaboot loolu mbokk jurit ñu ngi ciy fàttaliwaale it ni ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu leen di bàyyi xamuñu seen i mbokk am na ca benn mbooloo bu ñu war a jëli hôpital Dantec ngir yóbbu leen suul leen yoof ña nga xam ne ñooy fekkee sangaay ba ngalawaay ñu xam loolu ña nga xam ne duñu fekkee sangaay ba it ñu fexe ba dix heures et demi fekk leen arméeri yoof ñi ngi ñaan yàlla yàlla jéggal leen te jéggal bépp julit allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم احفظ الحجاج بيت الله الحرام اللهم اخلفهم في ديارهم اللهم تقبل منهم انك انت السميع العليم اللهم تب عليهم انك انت التواب الرحيم اللهم اشركنا في اجورهم انك انت ارحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين